mais Ousmane. mon frère. Ousmane si loo ne. waaw maa ngi nii di la namm. naka moom nice. mais mais looy waajal. waaw ñu waajal nag benn single boo war a génn le 14 février. benn ah le 14 février ah. label Subatel musique. Ah, ah. waaw incha allah. ah te mais da nga war oto te am na Vénia seen Vénia dafa mel ne genre oto bi la yor de. non Vénia 2000 2013 la yor man full option nice.

am génn âge di bongo. ah. <laughs> man la. Ah. mais euh, euh, euh, gis nañ vie ñaar. muy wër dëkk bi ah fu ne mu fay dem. waaw mais yow dafa naa dafa mel benn tournée nga. non non est-ce que waxeewul mbay kataat bii passé rek man maa dem. vie maa ko njëkk tukki. loolu waxoon naa ko fële day tiit fee. Ah. mu tudd. waaw ah. CTV ànd ak ànd ak laa bokkul aéroport yi baye kenn momuko auto yi baye kenn momuko geñ yi baye kenn momuko ko nañ liggéey ta nopi no ma enal bi nga sama magla sama xarit la man ngi koy nuyu de passage man enalu kenn mais nit numu ñew ci man rek noonu la ñew ci yow ngay gis ah, da ngay gis Macky ah, ah, Marichou hmm. day and ak babakar lobi lañ def mais yow kasse ya and lan moo tax loolu da nga sis wala lan parce que non duma sis de parce que man nit da ngay and ak nit uh-huh. man bokkuma ci ay lobby. lobby waaw. lobby lobby. lobby la kon boo ko mën ay lobby am ñoo xam ne ay lobby si lobby lañ nekk. man ñoom lañ parce que yaa ko wax. ñoom ñooy def seen coalisation seen seen bopp ñaan ñu ñaan ñu mën a ànd ay ànd man bokkuma foofu du ma ànd ak ñoom. samay xarit lañ nag samay waay lañ. fu ma fu ma yem ak ñoom laa yem ak ñoom di leen nuyu ça va ça va loolu laa seqal ñoom. su lu mu nee nañ amoo kon ah, afi benn bongo man. man xanaa Ousseyn Mbaye. ak ah, yene bu bu nga man sama xarit lañ mais dafa am ño xamantene nanguñu kon na nangu ya seen bay nangu jël na ci ru bañ mm-hmm. neena fi ay ko dalen ben bongo mbar mo taxaw di di playback mm-hmm. ñu dem vibe rek def leen saf mm-hmm. damay wax mais lolu am bay bay ban bongo fa de single mu def it bay na nga won deug xam na lepp ah ñu liggéey rek damay wax kon la kañ lañu la mëna xaar le 14 février d'ici combien de jours ba paré di leen jox rendez-vous nak le 10 ah. le 10 inshallah ah. le 10. maa ngi village Cristal. waaw. yow kese. ah il <laughs> faut ne. jaajëf jaajëf amal jàmm jaajëf.